jàmm ci biir li euh, comme ni ngeen ko xamee nag fi nga xam ni moom mooy assemblée nationale tey dañu fay amal li nga xam ni moom mooy séance plénière ngir diisoo xool ndax dañuy lever li nga xam ni moom mooy immunité parlementaire euh, député bi nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko loolu la quoi comme moom moo fi des jaakaarloog Macky dafa am ñu ne ci ginnaaw parce que loolu moom xel xalaatu ko sax am na yoo xamante ni moom xel xalaatu ko sax. dañ teg ko mais bu fekkee maay moom fu mu jàpp na jàpp bu mu wuyu fenn waaw bu mu dem fenn waaw bu mu dem fenn waaw parce moom jaay doole dañ koy bëgg a jaay doole mais loolu duñ ko nangu waaw xalaatuñu ko te luñ si bañul nag bañ ñu ko si. waaw dañ koy bañ ba ëllëg waaw tey jii gars bu ñu ñëwoon taxaw sax man si ñuy yëngal ci laay bokk tey dama préparé woon yëngal ci waaw luñ leen may dara du yomb daal parce que dañ ko bëgg tooñ. ñi ngi ko sekkal bu fekkee ni ñu bari aussi wax nañ que ni euh, lu jaaduwul euh, dañu war a dellu ginnaaw ñu xoolaat lan moo jaadu ñu def ko waaw mais affaire bi boo xoolee. majorité bi yëpp ku nekk nee ne affaire bi daf euh, politique daf ci laxasu donc bu ñu demee ba nit ñëpp di di wax loolu euh, état bi dafa war a euh, xoolaat boppam parce que ñun dëkk bi kenn moomu ko ñun ñëpp ci bokk yam donc nañ rafetal ñu xool loo xamante ne lu jaadu ñu def ko lu jaaduwul ñu teg ko ci ginnaaw parce que nit ki boo gisee loo xamante ne luy andi fitna euh, da ngay xool ni nga koy doxalee pour éviter loolu parce que fitna bi moom commencé bi la ñuy xam mais xamuñu fu muy mujj ak yan dégâts euh, mooy am <coughs> dégg même boo yoree sa kër euh, nga bëgg a taxawal ci kër gi dara wala di bëgg a doxalee neneen ñu ci gën a bëri ci kër gi bu ñu d'accordulee da nga war a xoolaat sa bopp. dellu ginnaaw xool ni ñu koy doxalee affaire bi nag <coughs> euh, viol la commencé te kuñ ko tuumal nee na deful ki ko tuumal nee na def na léegi bu ñuy booy booy ñëw di àtte dara je crois que ñaar nit ñi ñi ñu ñu moom problème bi ñaar ñooñu nga war a déglu euh, ku nekk nga déglu version am lu muy wax yow mii di atte nga xool noo koy atte waaw mais doo ñëw ngay bëgg a atte nga jàpp ni kuñ ko def yow andiwoo ay preuve yoo xamante ne leer na askan bi ñu xool da li nga andi méngoo na ak lu ku jigéen ki wax wala ku góor ki lu mu wax ay waxu tappale la ñun ñëpp kenn xamul ñoom ñaar ñoo xam ak yàlla waaw <coughs> waaw mais ku ñu dem tuuma ku ñu tuumal moom ci boppam nee ne Euh, lu ñuy doxal ci biir assemblée ci boppam moo jaaduwul moo jaaduwul ci yoon mais bu jaadu woon ci yoon mu fekk si leen ci ñu koy woo je crois que nit ki bu la waxee loolu su fekkee ni moom lu muy wax nekkul ci dëgg je crois que population bi ñooy dal ci kawam ñu ne ko li ngay wax ci dëgg mais ñëpp xam nañ ci moom ci boppam lu muy wax dafa tegu ci yoonam donc état bi je crois que dafa war dellu ginnaaw mu xool jaar yoon mu def ko moom mu dem wuyu si parce que bu defee lu jaar yoon moom amul lu muy bañ dina dem wuy comme comme moo ko wax nañu xool lu jaar yoon ñu def ko mu dem wuy ñu déglu ko